Euh, asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi dellu seeti ci tournée boobu nga xam ni moom lañuy def muy waajal centenaire wu maam Cheikh Alxaaji Malick bi mu def ci biir suuf ànd ko ak fondation maam Fawade Wele bi soxna Umu Xayri si bu soxna Asiyatu Mansour jiite ñu ànd ko ak Al euh, Ajdaad TV ànd ko ak Asfiyaay ànd ko ak Wilane TV ginnaaw bi nu jógee ci rawdu maam Fawad ak maam alfa ñu ñëw ci kër gii nga xam ni nag fii mu wéeru nii fii la maam Alaaji Mari juddoo ci néeg bii yàlla dogal na fii la ndeyam dëkkoon fii mu dendal di beneen néeg bi fii la maam Alpha ma yoro dëkkoon ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay fii nekkoon seen kër baay maam Bakkari Wele ñoom ñaar nag la am ñu bokk ndey ak baay mosuñoo teqalikoo ñoom it fii la ñu juddoo maam faa wadd mage woon maam alfa ma yoro fukki at waaye yàlla dogal na it maam alfa moo njëkk a génn àdduna maam faa wadd wele gannaaw ga nag ca la lépp loo xam ni maam alfa moomoon na ko da ko bàyyi woon ci loxol maam faa wadd maam faa wadd it yàlla dogal na maam Cheikh Alxaaji Malik radiallahu anhu maam alfa yi ma yoro def ci jëfandiku ci moom nëbb boppam ba feeñal ko nëbb ay doomam feeñal ko ndax cir bi nga xam ne moom la maam Cheikhu Umar waxoon ni ko na ko jox alaaji Malick te taxawu ko ndax bés ñëw nañu laaj maam Alpha ni ko lu tax doo bind mu ni duma bind ndax waajal kuy feeñ koo xam ni dafa war a bind ëllëg soo bindee di ko xatal ci yoon wi waaye man Malick mii ci boppam may ndeyam may baayam danaa ko wane ba ñëpp xam ni alaaji Malick mama Cheikhu Umar ni moom na ko préparé préparé naa ko ci kër gii nag fii fi la alaaj mali jële werd salaatul fatih fii fi la dale baasin mimara najaayam maam alfaahima yoro fii la ko dale la lax dari xaala seyxoom ak yéppam ijaasaam ak lit laa xam fii ci ëtt bii fii la ko maamam joxe najaayam joxe fii la cheikh omar fuuti daloon maam faa wàdd doon ko berndeel di ko taxaw ba sababu alaaji malik dikkam mu wuutu tariqa bi wutul l'islam ci yonent bi alayhi salatu wasalaam def ci tajdid ci jamono lolou yep ci keur gi la lépp amé lépp lo deg ñu di wax ci Seydil haji Malik fi ci bopam nak moy datti bi fi la lépp cosaanoo leer gi fi la baawaane fi la bayiko tal bi fi la tàkke alaaji Malik fi lañ ko jàngale fi lañ ko maye werd fi lañ ko defee lépp fi la ko ndeyam toqee taxawuko najaayam taxawuko ñu def ci mom lépp gannaaw ga lay soog a jóge fii dem àll yokku ji xam-xam néeg bii bi alaaji malik juddoo ci jamonoom yàlla dogal na maam faa wadd ak maam alfa toogoon nañ fii ci ëtt bi bés ñu jékkee ba mu yàgg maam faa wadd gis néeg bi ci boppam mu mel ni luy tàkk maam faa wadd ni bërëb nar a jóg daw dugg si ci néeg bi maam alfa ni ko teeyal mu ni ko sama doom ja mu ni ko da tee ngaa teey sa doom jii nga gis nii ay mbir a ngi laxasu ci moom loo xamante ni di nga gis kiraama bu ne bàyyi boo rek commencé defal sa xol te xam ne lu nekk a ngi ci kanam te di nga ko gis bi ñu toogee ab diir tàkk-tàkku néeg bi di dellu ginnaaw di dellu ginnaaw ba jëlaat natiru néeg bi bi maam Fawade dugg see mu ngi fekk maam Maodo booba ci mi mu nekk perantal mu ngi seex baaraamu déey bi di ko macc loolu xew na fii Cheikh Hadji Malick it fii ci boppam moo góor gi Mawlud Diagne Mawlud Diagne ca mag ña la dan len joge jarni jaar ni jéggi dem dex ga suñu ñu demee ku daan taxani da nga dan jël gal jéggi dex gi so demee ca walu taxan say mat su maté nga tek ci sa gal daal indi alaji malik amna na dafa ayé dem taxani ñew teud ci tefesu dex gi mam Mawlud jaan ñom ak ñemu da bokkaloon daara malik yow do jog taxani du wuti gal mun len yalla amna gal naka nu toog ab diir ñu gis benn gaal gu jóge ca boori boxol di joow boppam ba agsi fi Maodo tëdd mu dóor fa génn nga alaaji maa ngi yàlla dikk na jóg leen ñu dugg ci gaal gi dem yooyu yëpp ci ay ba mu bokkoon na ci fii nag di yaayam daf fi daan fanaane jaamu yàlla ba bët set daan na bindal taalibe yi ba boo masaana gis bindum maam faa wàddewel da ngay foog ni góor moo bind daan na dem fii ci kër càmmiñam nga xam ne moom lañ tudde maam alaaji maa di kër Cerno Malick Sow ndax cierno malik saw bu nu fàtte ni mooy turandoo alaaji malik mais xaadir la bu ñu fàtte ni alaaji malik baayam xaadir la muy maam usman waaye li ko yàlla may ci cër ci salatul fatih ndeyam moo jëloon werd wi ci Cheikhu Omar najaayam jël ko ci Cheikhu Omar Cheikhu Omar ijaazaal maam Alpha def ko mu nekk xalifaam fii la maam Alpha daan jóge it lu jiitu juddug Seel Xaaji malik daan dem Oré refondé jihad yi cheikh Omar daan def ci xare yi da daan dem moom di xare ji moom du weer di weer moo ko baleeg Cheikhu Omar da daan dem di wuy ji xare bu Cheikhu Omar masaane bind ay lettre yónnee ci ñi nga xamante ni ay soldat yu daan ànd ak moom la mam Alpha daan na jóge fii dem bokk na ci xare boo xam ni am na ci benn buur boo xam ni tuubata la tuddoon keroog Cheikh Omar ba mu naan tuubata ku ma ko fi indi dinaa la jox ngeen di neexal maam alfa boo ko gisee ku tuuti la woon boo gisee maam Alpha ama yore jëmmam ak jëmmu Alaaji Maalik ñoo ñoo niroo benn lañ ma Maodo dafa dippi ni yaayam maam alfa nekk ci front bi di xare di xare ba songanteeg tuubata gàddu ko tuubata jël paaka jam ko ci digg boppam deret ji sang ko ba paaka ba damm ci digg boppam waaye gàddu na tuubata ci ngëm-ngëmam ak conviction bi moom ci digganteem ak borom ba indi ko. ci kanamu Cheikh Omar Cheikh Omar dal di yëkkati loxom bu tedd ba tek ci bop mam alfa hima yor dal ni fouta mam alfa xawma kandi waaye yow dam dam paaka bi ci sa digg bop bi dana melni jubbu kawar bu ci sax yàlla dogal na mam alfa dundat na fi ay at yàlla mayon ko nak ci salatul fatiha lo xamni wax deug yàlla yem nañu bare bare ndax bu mësaa na fekk buntu bu tëju salatul fatiha la daan jàng rek buntu ba tijjiku daan na ci fajit dof daan na ci faj xala daan na ci tekki ay xala lu ne def na ko ci salaatul faati fii ci boppam am na jamono maam Abdou Boli Fall moo namp jox Cheikh Al Hadji Malick fekk tubaab yi dañuy tere ku jaay jaam maam Abdou Boli dem jaay ay jaam ñu boole ko fii ci Dagana ci tubaab yi bañ ko boole ñi ko boole moom ñoom ñoo dëkk fii yarondoo ñu convoqué ko ko mu ñëw fekk fii nijaayam ci néeg bii ci ginnaaw. ni ko najaay man de damaa jaay ay jaam woo lañ ma te su ma demee danañ ma nar a jàpp ndox mooy tubaab bi mu ni ko tàllalal sa loxo mu tàll loxo mu jàng ñetti peru salaatul faatiha ni ko raayal ci sa kanam mu raay ci sa kanamam mu ni ko boo demee tubaab yi xàmme la wala ña la boole xàmme la ma delloo Cheikh Omar sama kurus jël kurusam teg ba mu demee ñu rappel ana du Boli Fall mu ni maa ngi nii ñu xool ni leen yéen ci ngeen wax kenn ku ne ku xool doo xàmme ni Abdou Boli la ñu ni kii du moom tubaab yi bu ñu waxee Abdou Boli mu ni présent bu ñu laajee ñii ni moom kat kii du Abdou Boli tubaab yi mujj wax ni laissez le parti yéen xamu leen ki jaay ay jaam ci la dellu si dikki fii ne na jaay maa leen jaay ba yàlla xotti seen biir waaye ñoom ñëpp tubaab yi ak ak ñama boole kenn mënu maa xàmme mu ne ko ba lu tubaab yi xàmme woon wala ñi la boole xàmme la ma xam ni li ma Seexu Omar jox wérut alpha fii ci boppam la defere léppam bàyyi ko fii dem ci foron bi di xare ji ba indil alaaji Malick cër bii nga xam ne tey moom la am ay doom yu barkeel juddu ci ay set yu barkeel juddu ci ba tax na kon tey barab bii barabu jaamukaay yàlla la kër gi booba alaaji Malick benn taalibe la am muy alaaji Malick Sarr kooku dafa nekkoon ak Cheikhu Umar bi Cheikhu Umar disparaître moom ca lay wut ku ko àggale ci wàllu yàlla yàlla boole kook alaaji malik mu ñëw fii mage woon na juróom benni at alaaji malik am na ñu wax sax ñetti at moom fii la nekk ak maam faa wadd def ko ndeyu daara mu ànd ak cheikh alhaaji malik Maodo moom la njëkk a may werd mu nekk ak moom moom la nekkal ba gannaaw ga ba muy àgg njaarnde ca la barke bi ibbiku ba ñépp ngay dégg tey ñu doog a fekk si Seydi xaaji Malik foofu waaye daal ba muy mitti wax dëgg yàlla alaaji Malick kenn rek la amoon muy alaaji Malick saar kooku mooy bàyyu soxna màgget saar ak Serigne mbay saar ak Serigne Maodo saar mi jur ñoom Khalifa Sarr bii ci Louga ak Serigne Mounirou saar bi ngeen di dégg moom la alaaji Malick njëkk a am ci taalibe nekk ak moom ba noppi jël taawam soxna Faat si may ko ko kon ngeen xam ni barab bii fii la Cheikh Omar nekkoon ndax Cheikh Omar def na fi juróom benni weer ci li ëpp ci li wax waaye lu mën a doon fii la saxoon nekkoon fi soxna si di ko bendeel ay teraanga taxawu ko ba sonnul yàlla dogal na yit fii ci boppam fi la ñaanele maam faa wadd ndax maam faa wadd da daan jël ay këll di ko teg fii di ci teb ay dugub di ci may dugub picc yi di leen may ndox ñuy naan boole ko képp ku mës a xiif baa nga mar fii nga daan ñëw mu taxawu la e, togg ay cin lu ne mu yóbbu ci daara ji ku tilim li ci ay yére mu jël fóot taxawu taxawaayu ndawi daara loolu la fi nekke woon ba tax na kon li aju fi ci barke li fi nekk ci ay tasarrufat kenn xamul lu mu toll ndax am na ci loo xam ne dee su ko wax nag ci télé waaye ñu xam ne lii daal danañ ko baaxee taalibi yi ñu xam ko ci wàllu centenaire bi xam ko ci li nga xamante ni nii mooy tournée bi waa fondation mam fa Wade wala doon def fii ngeen gis ni nag mooy néeg bi mam El malik juddoo fii la fa Fawade wala nekkoon ñu xam loolu kon wasalaamualeykum wa rahmatullah